asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki yi fi teew yépp ñoo leen di nuyu bu baax di leen siyaare yéen ñépp jot li nuyoo akum siyaar ak ndokkeel bu jóge ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa jaar ci mboolem ay rakkam ak mboolem njabootu sëñ jamono siyaar boobu ak ndokkeel boobu ci yéen ñi nga xam ne yéen lañu fekk mu yabal na fi ngir xew-xew bii nga xam ne taxawal ngeen ko ngir yàlla ak jëm sëñ Tuubaa boole ma ak ndaw yi nga xam ne ñoom la ma booleel kenn ki di sëñ Xaadim Mbàkke mii nga xam ne ñoo àndoon daaw jéeg bi ñu ko mujjee def ñëw fi boole ma it ak sëñ Moustapha mi nga xam ne di sama rakk mu jiitu ma fi mu fekk ko fi di doomi magam mu waxe nañu ànd lépp mu am it délégation boo xam ne soxna si nga xam ne moom lañu ñu ndeyale liggéey bii di soxna baari Muntaxa moom Cheikh Chouaïb moom itam ab délégation war a ñëw kenn ci ñoom ñëw na muy Muntaxa Jaay des na ñeneen ñoo xam ne incha allahu suba ak jàmm daal ñëw bi ñu ñëwee itam ñu fekk fii ñu tedd kilifa yu tedd di suñu bopp ma leen a lim xëy na waaye danaa tudd sëñ Cheikh mi nga xam ne mooy sëñ Cheikh Matilay moom sëñ Abdoul Aziz Jumaada ma di ko tudd moom itam ñu ànd moom itam ñu fekk ko fi mu ñëw ngir bis bi sëñ Cheikh naa bu so jiitunu tuuti aslëf mi ngi ni toog sëñ Fàllu ñu jiitu ko tuuti moom it mi ngi ni toog ak mboolem mbokk yi nga xam ne noo bokk sëñ Tuubaa ñu fekk leen fi ñépp ñu ngi jël nuyoo boobu ak siyaar boobu ak ndokkeel boobu di ko teg ci seen loxo ñu teg ci loxol mboolem taalibe yi taalibe yi nga xam ne itam dañoo jiitu ngànk mbir mi ñu leen jot li yooyu yi ñoom ñëpp ñu ngi fii toog ci njiital sëñ Cheikh Mbeng mi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci gannaaw ñu ànd ak moom ci liggéey bi fekk fii it mboolem daayira yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Gabon te lépp yàlla def ni ma ko sëriñ Cheikh Mbeng waxe ma am ci mbégte lool mu ne ma ñoom ñépp ñoo àndandoo ci liggéey bi kenn ku nekk teg ci loxoom dañu fas yéene ànd yoon bii nga xam ne mooy yoonu karawaan bi nga xam ne moom lañ bëgg a dox loolu nag di lu sedd xol di lu am solo ndax eh, Sëriñ Tuubaa li ñu gënal ci mbooloo mi mooy fu mën a nekk ci àdduna ñu àndandoo te def benn jëmm def jublu benn jubluwaay kon loolu dañ ci sant yàlla bu baax te leen ci njaax nag bu baax a baax waaye leen ci ndokkeel itam bu baax a baax a baax euh, li nu fi indi nag lu am solo la ndax ziar ak euh, ñaan ak xeñtu ngir fàttaliku ak euh, soññ ko ngir man cee gën a jariñu rek moonu fenti ndax xam ngeen ne yoonu Gabon ci Sëñ Tuubaa moom day lu am solo ci yoonu murit di lu am solo ci sëriñ bi ndax sëriñ bi bi muy jóg di ñëw fii ci Gabon tubaab bi di ko fi indi booba ñamu bàyyi senegal moom ak mboolem koo xam defe nga ne moom sëriñ bi fu mu war a yegg yegg na fa te waxal na ko boppam itam dolli gu fi ak xam yàlla dolli gu fi gën a fonk jaamu yàlla dolli gu fi gën a nangoo jaamu yàlla yooyu yëpp dolli fi kon booba ñamu to ña tolloo woon ak jamono di ko xool ñoom gisuñu lu mu manqué loo xam ne war na koo mën a dolli te dégg ngeen xissa bu ñuy wax ne sallallahu alayhi wa dafa ñëw seet si ko ca xalwatu ba te wax ko ne ko fii ak ñeent fukki guddi war ngaa nekk xut bu samaan te mën na maa fexe yow ba nga nekk ko tey jii tey tey tey ndax booba alxutbaaniye mi ngi ci sëriñ Musoo bi nijaayam te booba ñeent fukki guddi rek moo ko dese ci àdduna te saa soo xamee ne dañ mosoo bi génn àdduna moom moo war a nekk xutbu waaye teewul jamono yooyu sëñ bi daf ko xamal ne ko man de loolu feesul sama bët li nga xam ne mooy sama yitte mooy mbooloo mii nga xam ne ñoo ànd yow dara foo jëm jëm fa mbooloo moom rek ñoo lokk sama bët ñooñu rek ñoo sama ñooy sama yitte yoon way tax ma mën a bokk ci ñoom nag laa bëgg nga wax ma ko nga tegtal ma ko ba ma mën caa booba sax digganteem ak sallallahu alayhi wa am na xijaab waaye teewul mu dogu ca loola sallallahu alayhi wa sallam xamal ko ne ko lii kat nga bëgg mbooloo mas na koo bëgg waaye day def saa soo xamante ne soobu nañ ko ak yàqule sax léeg-léeg mu fekk leen ca ndax charte yi dafa diis te dafa bari te dafa metti mu ne ko day charte yi nga xam ne moo koy taxadoon doon duma wax ne man naa ko duma wax ne danaa ko def waaye bu fekkee lu fi jële nit la boo fi suñ boom jëlee ma xam ne moo fi jële jëmm ji moom sama yoon nekku ci moo ko moom waaye bu fekkee jom rekk la ak fulla suñ boobu may na ma ko te ko ci def kon boobu kon dinaa ko am yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam di koy tegtal yoon wa wax ko nga xam ne ci la ñuy jaar mu yoon wu lëndëm mu metti jafe ndax te yoon woowee ko jëkk xamal mooy dëkk bi moom da nga saas ndax làkk nga ko ci làkk Tuubaa làkk boo xam ne dara mënatoo jóge ci àll ba ñëw di la fekk di la lor wala mu di la nattu kon na génn dëkk bi ba mu génnee dëkk bi ci gannaaw bu xalwatu ba jeexee ba mu woor ba mu ba mu ba mu wari ba noppi mu génn mu génnee dem Jolof sanc Mbàkke Baari foofee ba mu fa toogee tuuti la sang bi ñu ko doon wax di nijaay Abdu Sëriñ Buso bi génn àdduna mu dellu si jaale si ko Mbàkke Bawal delluwaat Jolof moom demee Jolof la mbir mi tàkk kalaame yi bari sos yi bari taqal yi bari metti lool ci lañ ko wooye te moom bi muy dem Jolof sax yónnee na ci tubaab bi xamal ko ne bi ñu ngi toxoo Mbàkke Bawal dem Jolof yóbbul ko ay teraanga yëgal ko ko tubaab bi ànd ci ak moom yónnee ko moom itam ay teraanga ñu jox lan te sëñ Mbàkke bu sa moo demoon ci yoon woowee Ndar waaye teewul suñ boroom lu mu nam sabab yàlla dajale sabab bi ruuxale gaa kalaame yaa yëf ya ba ñu wëlbatikuwaat ca loola mel ne du woon ñooma doon koo song nag ab xale ba woo ko ndar kon booba defoon nañ ne amul benn fu mu war a yegg ci yàlla te yeggu fa waaye teewul koo topp day gudd waaye rek ci tënk bi mu yàlla dogalee mu dem ñu àtte ko ba dañ koy indi Gabon bi mu ñëwee dem Mayomba def fa juróomi atam yooyu mu fa def ngir bañ ko ngir bañ a guddal nee na mujj naa mel ne jant bu fekkoon te weer laa mujj naa ne jant bu fekkoon te ne ku fa ku doon wut yàlla la am naa ko ba mu doy nga xam ne la nga xam ne moo ko waroon gàllankoor lépp ñu defee ne moom moo di gàllankoor moom jàppe woon ab gàllankoor waaye ab liggéey la ko jàppe woon moo taxoon mu ñëw fi ñam tàggu it maa ngi dem liggéey li yàlla te ñëw leen wax te booba ñu ngi koy tinu ñi di ko yërëm di ko ñaanal dàppel mbaa nangam waaye fii nag ñu ñëwee ci Libreville ba xew-xew yi sëñ Fallou doon wax léegi muy xew-xew yu bari am fii ci Libreville ba mu demee Mayomba yàlla defal ko fa nag daw feex dëgg la tubaab yi ña nga fa di ko jéem gàllankoor waaye suñu borom def na ko bu nëbbu leen ba mujj nee na ma mel na jant nag fu ma bëggoon a àgg ci yàlla ma fa lu ma doon wut ci yàlla ma am ko ba yàlla dogal liggéey ba jeex mu delluwaat Sénégal mu ngeen gisee ñaari ñaari ñaari ñaari euh, ray bu way maanaam ñaari taxarubaat yi maanaam bu Mauritanie bi ak bu bu bu bu bu bu Gabon bi wuutee mooy bii da doon li yàlla ba muy liggéeyee ba àggal nag ba mel ne jant fu waree gi mu yegg fa nag ba mu demee gànnaar dafa daldi di doon koo xam ne fees na la doon lépp am na ko moo tax naar yi bi ñëwee di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko seet di seet mbiram hmm. buñ dikkee kenn ku làmb da nga fa fekk loo xam ne ëpp na la nga yaakaaroon te booba day tubaarkàlla booba day barina na borom xam-xam lool bari na borom wilaaya bari na nit ñoo xam ne booba defoon nañu àgg nañ ci yàlla waaye nag yàlla def na tawfeex booba fekkee na mu fees dell kon nag liggéey boobu nga xam ne moom la liggéeyoon fii ak natt bi xam ne moom la fi am moom la fi moom la fi moom la ko fi moom la ko fi yàlla dajaleel ci loxol tubaab bi natt boobu ñun natt lañ koo jàppoon ñam bàyyi natt lañ ko jàppoon waaye moom ak yéeg rek la ci moom kon nag yéeg-yéeg lu am solo la loo xam ne euh, damay wax ne barab yi nga xam ne yépp sëñ bi jaar na moo xam jaar na fa nuyoo jàll moo xam fanaan na fa mbaamu yendu fa yépp kenn ku ne kam ko defal tey boo demee ak njabootam nangu nangoo duñ ba àddunay tukki loola far ci àdduna kon nag fii nga xam ne jàpp na ne fi la àgge ci yàlla jàpp na ne fi la amee lépp lu mu doon wut moo am fi at yu toll ne yim fi am ca Libreville ak ba yaakaar naa ne boobu dox suñ dox bii damaa defe ne bind na ko boobee ndax dara ndax mën dara mënu koo teel ndax ña nga xam ne ñoom la bàyyi fu ma a jaar benn minute ñoo ñen nangootuñ loola far mukk ci àdduna koo ci gis mu ne sama baay wala sama maam ba ko siñ bi gën a seen baab bi sëñ bi jaaree baabam dafa leen di sëñ bi kon nag dox bii yaakaar naa du war a mën a far ci àdduna kon sant ko war a def ni nga ko waxee léegi ñu sante ko yàlla noonu ñi nga xam ne yàlla xewale nañu ko te yaakaar naa ne ñépp daañu mujj def ko nii ñu koy defee incha allah lu am solo la kon loolu googu fànn day fànn goo xam ne du ci sol yi sëñ Fallou gëstu na ci ni mu ci war a gëstoo jàng na ko bu baax def na ci yitti ju mu ci war a def jëpp ndax xam nga ne mbirum sëñ Tuubaa ma ne su ko peeg kenn ku nekk da nga cay seet wet ga nga gën a mane nga gëstu ca xool ko sonne ko bu ko defee mu doon sax fànn waaye sëñ Tuubaa kenn mënta peeg léppam kenn mënta xam léppam kenn mënta euh, nettali léppam waaye comme moom gis gëstu na ko bu baax sonn na ci te am na lu mu na ci jote woon fii léegi te suba itam insha allahu loolu mooy thème bi loolu jël lu ci ca sori di cay jël waxtu yaatu bu subaa incha allah ku fi ñëw ci waxtu woowee da dégg ci thème boobu loo xam ne dana la yéem te danga ci mën a fabuwaat defaraat ci sa yéegalaat saru bu baax a baax a baax ngir gën a mën a liggéeyal Sëñ Tuubaa looloo tax bëgguñ ci sori looloo li ci am solo rek mooy jataay bi am na solo waa jàngkat yi li ñu def Euh, euh, rafetlu nañ ko ku ñëw rek nga defee ne kooka moo gën a mën a jàng kooka moo dàq jàng euh, kooku foofa la gën a neexe waaye fekk na li ko def nag mooy sëñ bi moo amul mbellit sëñ moom moo amul mbellit mbind mi amul mbellit lépp loo xam ne ku mu jawax rek nga defe ne kooka moo jël jongeen bi am na ko waxoon nit di ko laaj ku gën ci doomi sëñ tuwaay mu ne ko koo ci mujj a gis koo ci mujj a gis moom benn waaye kon njàng mi itam noonu la mel dafa mel ne kenn ku nekk ka mujj a jàng rek ka nga mujj a déglu rek mu gën a dég mujj a teew ci saga rek day mel ne koo koy dàqale kon loolu du ñoom du yéen sëriñ bi la sëriñ bi moo amul mbellit alhamdulilah sëriñ bi moo amul mbellit di sant ñi nga xam ne itam ñoo ko def ñëpp jàngkat yëpp waaye di sant itam waa dëkk bi yëpp ndax lii itam am gan dafa metti di gàttandu di gunge di teral di nemmiku di tëral di yee loolu dafa metti kon yéen yéen a gën a mbat a sant yéen lañuy gën a gërëm yéen la gën a sant ci mboolem ñi nga xam ne ñoom lañu fi sant yoola ñoom lañu fi gërëm di gërëm itam ñépp ñi nga xam ne jóge nañu Sénégal sonn ci jël seeni avion jël seeni bagage ànd ak ñoom ñëw ci ndigal wala ñu ñëw ci seen bëgg-bëggi bopp ku mën a doon rek loola amees na la gërëm amees na la ak cant bu wér a wér a ñi nga xam ne itam ñooy jot li jot li xabaar yi lépp lu fi xew tey ñenn ñi Sénégal ña ngi koy daal di jot fi saasa ak wala fu di nekk ci àdduna ñooñu itam kenn demul ñu des kenn rawu leen ñoom itam man dañoo sant bu baax mat dañoo gërëm bu baax a baax a baax kon ci gàttal lii loolu lu am solo la ñëpp ko kenn ku nekk nga xam ne teg nga sa loxo rek yaa ngi ci biir cant kooku yaa ngi ci biir ngërëm loolu yi cant gi mu doon wax nag nu sant ko yàlla defe naa ne barab bii ci la bokk yaa ni ko sëñ Fallou waxee léegi ñu dem ba lii man fee am te boobu muy ak ab got di ak mbooy ñu tabax ñu fekk garab gu fi nekk ñu marale ko ak sëriñ bi lépp ngir génnee ko nga xam ne fii mënees naa wax ne sëriñ bi taxaw na fi soldaar sa ko doo sa ko doon fexeel taxaw nañ fi mënees naa wax ne ahlu badri seen tànk fas yi taxaw na fii loolu itam lu am solo kon barab bi alhamdulilahi rabbil alamin bi mujjee ci loxol sëriñ Tuubaa ñu def ko nii ñu ko def teral barab bi bu baax barab bi tedd na ñu dolli ko teral la sëñ Mat Lamin waxoon ca Euh, ca xutbatu am sa sin rek di wax ñaari naar yi nga xam ne fekkoon nañ sëriñ bi euh, bi ñu waxee ne bi ñu waxee ne nekkatul mu ne wa wajadaahu nazifan wa zaadaahu tanzifa sëñ wa wajadaahu nazifan ñu fekk mu sell lool waaye li ñuy wax sang loolu yi tuddee ñu dolli ko ak ak tënk kon loolu alhamdulilah rabbil alamin naka noonu barab bi noonu la mel barab bu sell la waaye ngeen dolli koo teral nag barab bu tedd la waaye ngeen dolli koo teral kon alhamdulilah kon ba jumaa ji nañ ko fonk te di ko teral te di ko toppatoo di gërëm imaam ji nga xam ne moo fi nekk imaam Fall ak ñu mbokkal di taxaw jumaa ji yépp ñu ànd gën a góorgóorlu gën a xam li ñu lu mu doon te xam ne yàlla ci boppam suñu boroom moo leen ko jox ndax moo nanguwul daray sëñ Tuubaa neen barki démb ci aéroportu Ndakaaru bi ma sëñ bi di laaj Baay Faal dama ko ne noonu ñu def montagne sent maa ngi ñaar ñu def ko mu am ca Mayomba ma ne ko maa ngi ñaar mu am ca na nii nga xam ne noonu lañ defe fii tey te yaakaar naa ne bu ma dikkee xabaar bi nga ma jëkk jox mooy daal na ci feeñ kon nag alhamdulilah booba it dama doon wax sama yéene rek waaye booba itam yëgguma ci woon dara waaye kon nag dañuy continuer ñun ñëpp ñu àndandoo ko ñaan ko ci barkeb Sëñ Tuubaa barab yooyee nañ ko def ne barab bii te yàlla na ko yàlla def ñu koy ñaan ci barkeb Sëñ waa ñu ngi ñaan ci barkeb ki nga xam ne moo fi nekkal te Sëñ Tuubaa te ñu ngi leen di jottali ab ni nag bu baax ak cantam bu baax ak gërëmam bu baax ndax nun de wóor na nun ne bu fekkoon ne tey li wolof di wax ba mu di ànd ak xeñam la lii kenn du ko kenn du ko nett ndax barab bii ñëw na fi teg na fi tànkam ak ki fi nekkoon sax fotowu na ci ak moom loolu nag lu am solo la loo xam ne eh, yaakaar naa bu bu doon ci yooyu jamono lii kenn du ko defal kon nag alhamdulilah rabbil alamin ñu sant bu baax di sant mboolem mbokk yi di sant mboolem taalibe yi di sant mboolem ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi fii lu ci waaye tege loxoom rek façon bu ci waaye tege loxoom ak lu mu jamono doon rek loola yàlla yàlla fay ku aw yiwu kawe njortam barke Cheikh na Abdul Khadim barke Sëñ Tuubaa nañ ko ba suba sëñ Fàllu dana wax lépp li nga xam ne waaye ci barab bi lim ci gëstu lim ci li lim ci téye lim ci dajale lépp incha allah daanu ko leeralal ñu ànd ko ñi nga xam ne ñëpp li nga xam ne daal moo moo moo moo moo moo des euh, bu nu yamalee Sëriñ Tuubaa nag mbiram nag ci sunu biir rek ci ñii wax ne dama ne mu ne ah nañu xam na nag Sëriñ Tuubaa dafa war a su foofu nag woo leen ci waa réew mi bu baax bind leen ci ay traaj yu bari tasaare ko ci seen biir wax leen li ngeen di def lu mu doon te woo leen ñu ñu ànd ak ñoom te loolu bépp dëkk boo xamante ne kuréel bu mel ni am na fa di liggéey sëñ Tuubaa war nañoo def loola sëñ Tuubaa weesu na rek ñi nga xam ne dañuy bëgg a yemale suñu mbir ci dama ne mu ne loolu sëñ Tuubaa weesu na ko def ko ay traag yu mag def ay drapeau yu mag def ko ay mbind yu mag leeral leeral ko waa réew mi ndax nekkuñ ci dara te ku nekkul ci dara boo ko wanee dara mu ànd ak yow ci dara jafe na ngeen leen jàppale bu baax na ngeen leen dimbalee bu baax a baax a baax te jafe jot sëkk na ndax xëy na da doon màgg am na foofu àgg gu fa woon waaye nag mel na na tey uh-huh. mi ngi gën a dox jëm ci kanam te ñu ngi ciy sant yàlla bu baax war nañ góorgóorlu bu baax ñu ngi ci góorlu bu baax loolu daal mooy li nga xam ne barki démb bii ñëw uh-huh. lool laa jëkk a seetlu mu mel ne waa réew mi amuñ soxla ci li ñuy def uh-huh. te dañ cee war a am soxla dañ cee war a am taxawaay nañ leen ci woo nañ leen di woo ci ruq yi dugg ci kër yi woo leen ci loolu ndax nekkuñ ci dara ku nekkuñ ci dara boo ko wooyee ci dara mu ñu àtte ci dara joojee fàttewuñ jigéen ñi itam ndax li ma ko doon wax barki démb ñu ko tàmbalee woon ci sëñ Fallou ak ñoom ko àndaloon ñépp ci ay taale bi ñu di ko taxawal ci góorgóorlu seen kem kàttan waaye boo mboolem jigéen ñu fi nekk booba it ña nga ca woon ci biir loolu tey jii jigéen ñi fi nekk ñu ci biir loolu ba fi bàyyi itam maam Jaara ñu fi bàyyi woon ba keroog bi ñuy dem bi ñu ko mujjee dem bi ñuy dem ñoo ànd tey fekk ko fi nañ leen boole ay ñaan waaye nañ leen fàttaliku bu baax a baax a baax a baax danañ leen xool ci ñoom itam jigéen ñi itam nañu xool ci moom moomee xam ne tey am na mbirum sëñ Tuubaa bu ko jigéen dong dese woon te góorgóorlu it day dem rek jëm ci kanam incha allah mboolem daayira soxna jaar yi fi nekk itam danaa leen soññ bu baax ndax liggéeyal sañ Tuubaa mooy liggéeyal soxna Jaara liggéeyal soxna Jaara mooy te liggéey bi xam ne tey sëñ Muntaxa ngi koy liggéey ci Poroxaan du man maa jekk ci di ko wax sax waaye mën naa cee wax en tant que bu gis te sañ a seere waaw murit bu gis te sañ a seere muy liggéey bu am solo liggéey boo xam ne waxtu nekk ay gone yu jigéen la ñuy jàng alxuraan njàngalin woo xam ne dañ koo war di wattu te di ko bind te yàggul dara te tey ji boo fa demee man dafaa woon lu ëpp ñetti téeméeri kaamil yoo xam ne ay gone yu jigéen a ko bind te gone jigéen goo xam ne bi muy dal jàng yaa ko dalal di ko dundal di ko lëtt di ko wodd di ko def lépp ba mu xëy bindub kaamil loolu yombul kon nag daayira Soxna Jaara itam lépp ñooma kon nañu gën a góorgóorlu lu baax sëñ baa ngi koy toppatoo sëñ Isaaxa mu di ci sonn lool di ci def yitte bu baax a baax a baax di ci def taxawaay yépp yi mu ci war di def sëñ Moustapha bi mu koy taxawal da daan wax naan jëfandikoo ci benn dërëm bu jëm sama soxla su bopp moo toj gaal gudd laa kon loolu fa mu nekk sori na te xam naa ne moo jote na sëñ Muntaxa bi itam kon nag nañ ci bàyyi xel bu baax sëñ Isaaxa moom li ko taxaw it mi ngi dem ci barab yu bari defe naa ne fii ñëwagu fi waaye nag yable na fi ndax ndawam a ngi nit di sëñ Moustapha moom sëñ Cheikh Astou moom sëñ Bassirou muy ànd ak moom ci barab yépp di ko jàppale ci liggéey bi rawaat na fii ci Afrique kon moom itam na ko ci bi ca loola te bàyyi ko ci xel bu baax te xam ne tànk si saxaar rek la fi taxawe ca it ca loolu rek lay wax te lépp lu ci xew itam day leen ko leeral xam na lépp nu mu la mu ca man xaw day loo xam ne mënu ma ko ñàkk wax nag waaye daf maa jege ba mënu ma wax waaye nag sori na ma it ndax murid kenn rek laa ci murid yi kenn laa ci murid yi sañ na maa fekkee sañ na maa seede sañ na maa soññee li may soññe sama bopp soñ naa ko soññe mu yëpp loolu moo tax ma di ko wax waaye wax gi sax doon loo xam ne euh, gën a leen ma noonu waaye nag xam jee tax rek dama cee xam loo xam ne it euh, xam naa ci lu mën a wax euh, te fekk ko te fekk ci itam moo tax ma di ko wax rek waaye maa ngi jéggulu sax nag ci loolu ñun li ci sunu wàll mooy ñu soññ rek murid yi ci li nga xam ne moom la ñuy def lépp loo xam ne daal murid war na caa teg loxoom nañ ca teg sunu loxo sàkku ca ngërëmal sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa lépp loo sàkku ngërëmam te ba nga dem nga demee ci ak pëstéef teg ci sa loxo sàkku ci ngërëmam da nga ko ci am te lu mën a doon te la nga defoon démb ne boo gendiku jàppal ne lii ngay def tey moo lay may ngërëmam buñ ko defee ndax sëñ Tuubaa kat diirub li fi nekk mas sa sàgg na lenn loo xam ne ndigal yàlla yi bu dee lépp santaane yàlla yi juróomi ponk lislaam yi ñooñu ponk lislaam yi am nañ ay teggin am nañ ay sunna am ay farata am ay manduubaat ak mustahabaat yooyu yëpp da ko fonk daw ci bàyyi dara mu jàll loo ci seet rek defe ne moom loolu la gën a fonk loolu la gën a fonk loolu lam defoon tey bu subaa def ko kon nag ñu góorgóorlu bu baax su suñu blaat misaaloon na ko bu set wax saa su ñëw mu duy la ba nga fees bàyyi la nga dem yóbbaaleel ko waxtu wu jot mu duy la ba nga fees bàyyi la nga dem yóbbaaleel ko bis bu set boo ñëwee mu duy la ba nga fees bàyyi ko mu dem mu yóbbaaleel ko noonu la ko defee ba dundam nga ko jeex nan ko kenn mënu ko nan jéem suñ kam kàttan nañ ko bàyyi xel nañ ko nañ nañ nañ ko naw ca loola nañ ko roy ca loola sa luñ ca néew néew doole rek ñu ngi sant bu baax ñu ngi gërëm asalaamaaleykum